Euh, nit ku xam Sénégal nga nit ku xam nit ñi nga. moo tax sax am na lu ma la laajoon mais tontu woo ci <laughs> jamono ci nii à l'heure du choix président Sall fan la war a teg bëtam. ma ne la laaj naa la ko sànq. wax nga dëgg ma parce que boobu da nga ma yóbboon ci leneen. <laughs> non xam nga tuur dafay betti dama lay wax lenn. Mm-hmm. ki muy tànn il mu wóolu ko. pratiquer ko lu yàgg xam ko xam ne ne homme de dossier la. xam ko ci beaucoup de choses sa capacité d'anticipation ak les connexions de par le monde yi mu mën a am. Mhm, c'est important. su ko amul su ñu andilee koo xam ne ne il est sectaire parce que euh, il représente quelque chose à à à kër mu kii <laughs> ñu li ñu soxla mooy ku am connexion link yi mu am ko de par le monde pour mën a di mobiliser xoolal tey hostilité bi ñu am dans le cadre aujourd'hui euh, de de de de de de de de yëgaay bañ. Euh, euh, euh, comment ça s'appelle encore affaire affaire affaire kii yi di def les bio les machins le pétrole le mm-hmm. gaz dañ ci war a moytu léegi CO2 yi ñuy andil soo amul pap président bu am personnalité bu am dignité bu mën a def dakkal ak ñoom mais dañ lay banaliser parce que ils sont en train de légiférer dans le pays pour dire que toutes leurs grandes banques waratuñu dugg ci di financer les secteurs pétroliers et les secteurs yi y a problème. Mmh. pendant ce temps ils achètent ñoom du gaz de schiste aux États-Unis dafa sori le temps que ñu koy andi foofu yépp ñu ngi ils préfèrent dem jënd ko foofu pour ñëw jënd ko au Sénégal soo amul président bu am personnalité mën a taper sur la table am ful fu ñu jëm mais aujourd'hui le Sénégal est à presque vingt deux à vingt quatre millions d'habitants. Mmh. mais dans dix ans nous serons à trente cinq millions d'habitants. dans vingt cinq ans une génération cinquante cinq millions. Mm. soixante millions waaye ñooñu fu ñu jëm su ñu mënul anticiper tey ci les choses si le plan ne doit pas revenir si on n'a pas une stabilité gouvernementale pour ñu bàyyi le jeu politicien jox gëdd les journalistes yi nga xam ne ne dañu jàng tam équilibré. Mm-hmm. ñu bañ a vivre de sensation. Mm-hmm. ki ci ki ci nekk partisan ne dem créer nekk ci parti politique tamit jàmm ngeen toog di liggéey yéen. Mm-hmm. mais naka nga mën a comprendre yenn di ko wone alors que au delà de toute considération ñoo bokk réew mi. Mm-hmm. war nga préserver aujourd'hui mais mais la dignité des forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. soo ko banaliser sa bopp nga banaliser parce que ëllëg soo ko soxlaa mooy ñëw si. xoolal tey li ma la wax léegi ci gos boobu rey waa ji gratuitement mm-hmm. pour 500 francs ou 600 francs soo daaloon tey sa frère foo jëm kon Macky ki mu war a jël il faut que mu am les links là. il faut que mu doon nit ku dal il faut que mu doon. kuy tëddee njaaxaanaay mhm. uuf askan bi xam na ne sonn nañu def am yu ñu bëgg dimbali les populations vulnérables mais en commençant par les adolescentes les adolescents mu jox leen métier mhm. ñi nga xam ne ne dañu war a mën a def enseignement supérieur ñu spécialiser leen rendre obligatoire les stages dans les assemblées d'université ñu dugal fa des opérateurs économiques pour ñu nekk ci seen conseil d'administration mhm. dans les écoles privées supérieur ISM e et cetera les écoles de journalisme ñu dugal ci ñi nga am na ne dañu am compétence ñuy mën a xool pour ñuy trier xam li ñu soxla suñ ko deful yaa am problème. jërëjëf. loolu laa yaakaar ne moom la war a def.